asalaamaaleykum euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu euh, di di ñëw di waxtaan ak yéen si wàllu lu jëm si wàllu liggéey lu tax liggéey liggéey dafa am solo parce que nit ki moom su sutura rek nga am sa sutura rek nga am te sa sutura li la koy may liggéey te see bokk liggéey jaamu yàlla bu dee jullit nga waaye si wàllu liggéey bi laay jëm si wax si mbiru àdduna bi ndax euh, boo xoolee tey jii suñu population dafa jeune mais suñu population jeune gi mu jeune yëpp la plupart jeunes yi si bëri amuñu liggéey te gouvernement bu ñëw dig suñu jeunes yi liggéey dig emploi suñu jeunes yi ne day créer nangam emploi te loolu boo xoolee dara du si am mais lan moo tax du am tey jii ñoom ñëpp nangu nañ ne que ne euh, suñu dëkk yi dañu am problème mu spécialisé wu dañu am problème mu spécialisé wu maanaam nit ñi amuñu ay métier y a que des jeunes mais jeunes yi amuñu métier amuñu amuñu loo xam ne nii moom lañ mën ba boo doon créer emploi boo amul usine bu taxaw nii la plupart jeunes yi ngay am yëpp dañ naan la mën nañ lépp nit nag du mën lépp ñun moom mooy ñun moo ñoo yor yor jikko yoo xam ne mooy euh, dañoo mën lépp te nit boo bëggee mën lépp maanaam li nga mën lépp lépp li nga mën dara doo doo si mokkal maanaam ay cuuj capp rek nga si am te loolu dara waralu ko tamit suñu système éducation éducatif moo tax système bu moo moo ñu formé noonu maanaam da ngay jàng euh, primaire def jàng lu ay six matières sept matières huit matières def def ko def ko sixième secondaire ba troisième secondaire juge secondaire dem liise continuer ko noonu maanaam matières yi day bëri léegi matières yi moom ngay demee ba def bac boo demee bac nag yow ci ngay xaw doog a commencé spécialisé wu mais lool c' est trop tard c' est trop tard parce que temps bi ñu xaar yëpp at ay at yi at at nga koy jàng maitriser woo dara parce que lépp globalité nga koy jàngee. tey jii dafa jot ginnaaw gouvernement bi ginnaaw état bi ginnaaw population dem nañ ba nangu que ne ñun. suñu système éducation bi baaxul. baaxul parce que nit ñuy jàngee baaxul moo tax tey jii nit ñi dañuy dem ba am bac dugg université def fa ay years génn ñu mun dara boo leen jëlaatee di leen liggéeyloo il faut nga former war mais tey jii dafa jot ñu changer système boobu système boobu wax nañ ko ba sonn sax pour ñu changer ko mais nit ñi état bi nang nangoo bu si investir mais dëkk bi nga xam ne nii système éducation éducation bi baaxul dëkk boobu munul développer ndaw yi mënuñoo am liggéey man lu may ñëw fii di proposer di ko wax man si wàllu informatique laa bëgg wax te tey jii lax may wax si wàllu informatique parce que informatique dafa nekk jamono tey jii moom mooy contrôler jamono ji te ginnaaw suñu état yi nanguwuñu changer système éducation bi léegi ñun suñu bopp nañ ko changé suñu bopp ñun lañ koy changé suñu bopp dañuy xool tey jii ku si nekk booy jàng nga yéem a xool lan mooy se lan moo lay may liggéey suba parce que tamit nit ki tamit yow yaay choisir sa sa yoonu bopp parce que bu fekkee état bi lañuy ñuy xaar topp seen système bi ñun du ñu dem ñoom ñooy continuer di dem rek parce que ñoom la plupart seen doom yi sax dañ faa jàngewul jàngewuñ fii fii la ñuy jàngee te fii boo fi ñëwee boo nekkee Europe di fi jàngee Europe système bi mooy lan à partir de troisième choisir nga li nga bugg a doon nga dem spécialisé si loolu continuer ko balaa ngay def niveau bac sax nit ñi ngay liggéeyloo mais ñun ba université sax boo mu du am liggéey parce que lan parce que système bi baaxul informatique nag lu tax ma koy ma koy proposé tey jii boo xoolee suñu école yi ay une heure informatique la ñuy am tey daanaka sax élèves yëpp duñ jàngi duñ dem defi cours informatique léegi est-ce que jotul tey jii ñu dugal matière informatique si à bas âge est-ce que jotul tey ñu am plus d'heures foo nekkee secondaire def ko comme matière mathématique comme science comme euh, SVT comme anglais comme français comme portugais comme yeneen lang yi lan moo tax tey jii suñu euh, matières yi lan moo tax tey jii jotul ñu jut jël informatique imposer ko élèves yi imposé ko si si école yi ba nga xam ne nii tey jii dinañ am ay informaticiens informatique nag lu tax moo ma bëgg si lu tax ma jël ko parce que informatique moom moo am métier yi nga xam ne nii yu yi nga xam ni dans le futur ak fi ñu toll nii y' a il énormément de métiers yoo xam ne boo xasee nekk boo xasee maîtriser tuuti informatique am na si lu bëri loo mën a spécialisé wu. yaa ngi dégg kon looloo tax tey jii informatique parce que tey jii bu fekkee nit ki à bas âge la commencé jàng informatique. mën a devenir si informatique bëri na. te loolu dafa tax day tax day suqali dëkk non seulement informatique yemul rek nit ñi war ko jàng comme métier mais tey jii yu bëri si loolu la ñuy fonctionner internet. Euh, si informatique lay jaar tey jii Google informatique la maanaam mun naa lim yu bëri loo xam ne nii ba nga xam ne nii tey jii usines yi ay robots yi ñu fay créer informatique moo ko développé boo demee si euh, tey jii application yi yi nga xam ne nii informaticiens yi ñoo ko développé mooy maanaam def mun nga nekk mun naa mun naa lim métier yi nga xam ne nii informatique doo koy joxe mun nga nekk développeur mun nga nekk programmateur mun nga nekk euh, mun nga def maintenance mun nga nekk euh, web designer mun nga nekk bio informaticien mun nga nekk data scientist mun nga nekk data analyst mun nga nekk data mun nga nekk ak métier les métiers de l'IA yi euh, intelligence artificielle loolu rek dafa bëri métier parce que si la data scientist yi nekk si la machine learning nekk si la deep learning nekk te yooyu tey jii moom la nit ñi di utiliser pour euh, créer ay robot créer yenn machine yu bëri nga dugg sa kër naan lampe bi tàkkal mu tàkk loolu euh, intelligence artificielle moo koy defal moo koy defal te tey jii ñun dañoo pareegul dañoo pareegul te dañoo war a dem si si domaine boobu léegi nag man damay wax ne nit yi si nga xam ne da am sa doom bu fekkee dañ nekk si système boo xam ne ñoom nanguwuñu changé gouvernement bi nanguwul changé parce que xaalis bi ñuy investir si leneen bu ko investiroon si développement ak éducation wu ñu suñu jeunes yi tey ji liggéey dootul di problème mais nag c'est dommage que ñoom su ñu ñëwee seeni programme yëpp si programme ay projet wu mandat lay nekk maanaam cinq ans laay def si cinq ans yi ma bëgg fi réaliser ay ay ay ay lu nekk nga dugg si mais loolu du baax du baax dañu war a am ay projet de long terme même bu yeggul nga xam ne lii ne bu yeggee dinañ ko jëriñoo ay ati ati at at mais ay projet yi nga xam ne yëpp ay projet juste pour sama mandat yo pour ñu xool maa def lii def ma lii mais loolu dañ see war a jug dañu war a jug si ut ay projet woo xam ne nii c'est projet juste pour benn mandat wu cinq ans wala benn mandat wu dix ans. projet yooyu baaxuñu dañu war a ay wut projet yoo xam ne c'est cent ans soixante ans génération bi nga xam ne da koy dund di ko dund di ko dund. waaw loolu lañ soxla te tey jii informatique informatique jot na nag état bi investir si jot na nag état bi fexe ba ñu am matière informatique si école yi fexe ba am plus d'heures. waaw ni ngay defee euh, francais six heures de temps moom war nañ ko mën a defee informatique six heures de temps. loolu dina permettre nit ñi. balaa ñuy def bac sax boo moytu lu ñu soxla sax di dem feesal université yi parce que am nañ liggéey wala am nañ si lu ñu développé parce que non seulement internet bi kese yow sa bopp bu dee informaticien nga mun nga si créer liggéey boo xam ni soxlawoo entreprise bi di la jël soxlawoo di dem di dem di dem di université donc looloo tax tey ji man may wax ne ah dañu war a góorgóorlu war a fexe ba informatique gën a dugg si suñu njàng bi te ñu bu ñu mënul changer jàng bi parce que jàng bi moom déjà baaxul. il y de gens yoo xam ne nii jàng nañ ba am seen bac ñu dara amuñu benn métier bool mënuñu la mënuñu la jëriñ si dara. mais nu am nañ connaissance quand même am nañ connaissance parce que lépp luñ jàng jàng nañ. lu nekk genn wàll genn wàll lañ si jàng moo tax nag Sénégal nit ñi bëri wax wax lañ gën a mën a ko jëf parce que niñ leen yaree ak niñ ñu jàngalee moo tax mu demee noonu wax la ñuy def mais jëf gi dafay manqué parce que ba ñuy jàng jàng jàngaluñ leen woon jëf amul benn école la plupart y a que peu de gens yi nga xam ne ñi ñooy def pratique mooy ñi nga xam ne dañoo am chance def technique mais tey jii àdduna bi dafa tool nag si toutes les techniques kon nag tey jii dañu war a fexe valoriser informatique si école yi ngir yàlla ak yonent bi loolu war nañ ci góorgóorlu fexe ñuy def ay six heures de temps huit heures de temps même pour nga xam ne nii capable nañ am ay ingénieur si lu ne en matière d'informatique te buñ ko amee développement day am métier day am université yi dootul fees parce que université yi day fees ña ngay feesal mooy droit la ñuy def te la plupart après dañu mujj virer dem defi leneen mais dañoo am temps bu bëri bu ñu perdre dañoo am temps bu bëri bu ñu perdre balaa ñuy dem virer di dem defi leneen loolu nag laay wax kon dañ see war a jub di wax ne ah ku gis message bi na nga koy jàllale ba mu mun a jot si nga xam ne ñoo ko war a jot même bu ko man waxuma sax justement pour état man damay wax juste suma suma jeune frère yi juste ñi nga xam ne ñi ngi si école yi di jàng def wala nekk si troisième nañu góorgóorlu favoriser informatique lépp lu ñuy jàng noonu bu ñu defee bac après boo moytuwul li si bëri dañ koy bàyyi waa dem suivre leneen kon tey jii ku si góor góorgóorlu fexe valoriser informatique si si ba ngay ndaw maa ko wax balaa ngay def bac di nga gis ku la soxla liggéey di nga amal sa bopp njëriñ di nga amal sa bopp njëriñ bul xaar bul xaar di dinaan da ngay xaar di ba am bac pour mun a def formation rek bu dee nii troisième bu dee yow da nga yaakaar ne tey tey tey jii nit ñi jàng ñëpp après seen euh, finalité mooy am liggéey am liggéey mooy seen finalité léegi lan moo tax tey jii duñ ñu orienté déjà présent si bi ñuy ndaw si wàllu métier si wàllu liggéey nan yan yan yan domaine nga xam ne jàng bi dèjà da la fay yóbbu bu fekkee tey jii crack nga sa xel neex na boo si génnee mun nga nekk ingénieur lu ne bu fekkee sa xel soriwu si avancé woo si mun nga am sa métier nga liggéey comme ñëpp mais nag man loolu laay woo si sama jeune frère ñu teel a spécialisé wu bu leen si état bi yóbbu ñoom nañ si yóbbu seen bopp jàng di jàng di jàng di jàng di jàng jàng jàng jàng continuer système bii ñuy def boobu ba léegi moo tax tey jii chômeurs yi gën a bëri que ñuy liggéey te am nañ population bu jeune am doole mais il nous aussi ñu toogaat xalaataat xool suñu doole ak suñu xam-xam nan lañ koy jëriñoo. waa leneen li am solo lu ma bëggoon wax mooy euh, suñu école yi aussi war nañ góorgóorlu tamit ba ñu fexe jàng anglais. engrais dafa am solo pour ñi nga xam ne tamit dañu bëgg a def informatique dañu war a sóoraale bu baax que ne inf lépp li jëm ci wàllu informatique si ordinateur la base ci anglais la nekk donc euh, anglais bi il faut tamit nga jëm góor góorgóorlu bu baax non seulement aussi soo tukkee anglais dafa nekk euh, première langue du monde dëkk boo dem même ñu amee seen propre langue écriture yi fay nekk souvent anglais da ci su ñu defee seen propre langue après dañuy taftal si suuf anglais kon anglais bu dee dañuy aspirer développement kon fexe ba nit ñi gën a maîtriser anglais français bii ñu jël parce que ñoo ñu coloniser ñu topp seen langue dafa am fu mu yem presque dafa am barrière wasalaamaaleykum wa rahmatullah maa leen di nuyuwaat di jéggalu si kàddu yi di wax daal ab prix ab conseil la di ko jox tamit suma jeune frère yi ñu jéem a valoriser informatique même bu ko état bi defut ñun nañ ko defal suñu bopp ndax loolu mooy suñu njëriñ tey ëllëg